صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على هم مع الحس والسفر على من historique gu daayira pas ci biir Touba waaye mën nañ ne ci Sénégal mën nañ ne ci yoonu Mouride ndax ki nga xam ne moo ko sos muy Serigne Cheikh xamadu Mbacké Gaynde Fatma di taawub Serigne Modou Moussa mi nga xam ne mooy taawub Serigne Touba mi ngi ko njëkk a sos ci 1942 43 boobu Serigne Modou Moussa mi ngi foon boobu mi ngi ko tudde woon diwaanul Mouridina liñ ci jublu woon it mooy xam ne. Euh, mbooloo moo xam ne dañuy gën di bari dañuy gën di yokk dañuy gën di tasaaroo war nañoo wut lu formel ñu euh, di organisation boo xam ne bu tënku ci ay kayit la boo xam ne itam dana leen may ñu mën a daja di waxtaan di waxtaan seen mbir bopp di waxtaan seen mbir biir waaye di war a waxtaanee itam mbiri àdduna si nga xam ne ci la ñu dund ci la ko taxawaloon euh, tudde ko diwaanu Muridina waaye doxut lu yàgg ndax gis-gis boobee moo amoon. ñamu jamono teeloon nam ko gisee woon gisewuñ ko woon noonu ba loola nu te tëtee mu susaat beneen tudde ko daayiratul muhibbina fi xidmati sayyidil awwalina wal axirina daayira bi ñu soppante ngir liggéeyal ki gën ci ñi njëkk ak ñi mujj mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu itam lim ci jubloon rek mooy dajale julli jëpp ndax moom mission am Serigne Cheikh Mbacke Serigne Cheikh Amadou Mbacke moo doon dajale julli ji ay discours am li muy bari bari lim ci am boo ko dee liir li nga ciy déggee mooy ab jullite ngi bu fonk bu yéene julli ji jàmm ab julite ngi bu jub ab julite ngi bu nangoo liggéey ab julite ngi boo xam ne day labiré fu mu toll ay mbokk julitam kon moom ci message am doo ci xàmmee lu na moom ab julit te loolu mooy dëgg-dëgg murit ab murit moo di ab julit dëgg dëgg dëgg dëgg loolu nag la doon incarné bi nga xamee ne itam sos na diwaan euh, daayiratu mooy bi ni fi xëy si say dem waa xi deen te moom it wéyut bi sëñ Modou Moussa jógee nag ba mu am vingt ans ndax sëñ Modou Moussa ci 1945 la fi jógee 1965 euh, la sëñ Cheikh Ndiaye Mbacke njëkk woote njaareem dajale mbooloon ba ñu ñëw mu wax leen ne ba fi sëñ Modou saa jóge léegi ñaataat la ñëpp ne cel mu ne boobaak léegi ñaar fukki at la ndax euh, quarante cinq ba soixante cinq vingt ans la mu leen boobaak léegi nag kenn ci yéen xamu ci lu ma bëgg wala lu ma bañ li ko waraloon mooy daa am liggéeyu sëñ mu saa lu ci desoon lu ma doon àggale léegi nag man sama bëgg mooy daayira daal ne daayira nag lu fi yàgg la daal ne ci jamono yonent bi saa alayhi wasallam la daayira xewoon booba ci ñawkal jaasi lañ ko defal yonent bi mooy xeex ak noonu yi dugal ci diine sëñ tubaa ñëw ñu defal ko ko ci daa ak xalima muy bind di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam tagg ko ba am lu toll li mu am sëñ Modou Moussa ñëw ñu defal ko loole ci ab toolu àllarba ndax moom itam mission bi ko fi sëñ Touba bàyyoon mooy tabax jumaa ji ak taxawu njaboot gi ak benn la yoon wi nee na loolee nag nekkoon ci ñëw koy jaas yi nekk ci xalima yi sëñ yi daayi xalima nekkoon ci gopp bi ñu daan bàyyi toolu àllarba yi ñuy liggéey jumaa ji mu ne loole suñu borom defal na ko ci carte ak Russie mu ne lim ci jublu itam mooy dajale julli ju góor yi ak jigéen ñi paa ngir jariñoo leen waaye ngir ñu jariñante kenn ku ne xam sa morom ndax benn nit koo xam ne mën nga lépp wala nga xam lépp amut waaye loo man lu ne am na loo tële waaye li nga tële sa moroom mën na ko ñoo ki tële dara nag ak ko am buñ dajee bokk nekk benn ngir ñu dimbalante cee dana yomb kon day mel ne bu boobaa kenn du jàmbat bu boobaa kenn du wax ne damaa ñàkk dara ndax sama morom am na ko wala sama morom mën na ko wala sama moroom xam na ko loolu la jublu woon ci daayira ci la ko sosoon ci 1945 tudde ko Ittihaadu Atbaa'il Xaadim li taawuni wa tamassuk bi diinil qawiim mooy fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamee nag dem nañ ba 1987 te sëñ Cheikh Mbacke jóge fi Serigne euh, euh, Mbacke Soxna la wuutu ko ci le 11 mars 1978 bi ñu demee ba 1987 la woo rakkam nag Serigne Abdou Fatah ne ko gis naa ne fédération bi sëñ Cheikh taxawaloon ndaw ñi ak jigéen ñi rôle biñ ci war a joué wuñ ko ci. te ko yor dara bëgg mu jëm kanam dangay ngay firi da ngay da ngay fexe ba ndaw ñi ak jigéen ñi am ci doole mu taxawal ñaari cellules ñaari kuréel yoo xam ne moom lay tuddee wilaya yi mooy wilaya des jeunes ak wilaya des femmes wilaya des femmes mooy jeeg ji nga xam ne am nañ lu ëpp trente cinq ans euh, wilaya des jeunes mooy euh, ndaw ñi nga xam ne am nañ lu manqué quarante cinq kon loolu mooy euh, mooy moom mooy structure yi ca jamono Serigne Cheikh ba ci jamono Serigne Mbacke Mohamed loola mooy wéy ba jamono ji yàlla dogal nag ci bi Alaaji Baara toogee te jël liggéey bépp teg ko ci loxol jëwriñam rakam Serigne Bassirou Mbacké mu Cheikh Abdou Khadre yàlla ko fi suñu borom yagal te wéral ko mu gis na liggéey bobu euh, war nañ ci war amna manam kër gu nekk wala daayira bu ne war naa am lo ci def booba itam Serigne Cheikh Mariam Mbacké mi nga xamne moy mom Serigne Abdou Karim mom Serigne bar mom Serigne Touba mo jitté commission bi mom itam bi nga xamé né jox nañ ko commission bi xelam dem ja fekk na xamante naa goowee ndax ku jekkawoon sëñ Mbacke soxna loola ku taxawoon ak moom la ab xaritam la ku sëñ Mbacke daan déglu itam ngir fulaam ak matam ak itam xam nga ak xam boppam. loola ba nga xamee ne jox nañ ko commission d'organisation mu gis ne daal li mu xam ci wilaya xamoon ko nañ daan taxawee ci lu fu leen sëñ Mbacke yebal ñoom la bëgg a liggéey bi kon depuis 2008 ba léegi ñoo ngi ci commission bi di liggéey. ànd ak nag coordinateur bi Serigne Ousmane Mbacke moom Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaye na xafaat ma nga xam ne liggéey bi yëpp ci loxoom la ko Serigne Bassirou Mbacke moom yoonu murit eh, ay daayira ko yor 1974 eh, ku ñuy wax Baye Fallou ñoom yàlla na borom yokki leeram ci fondateur yi fédération bi la bokkoon daa masa laaj sëñ Cheikh Mbacke ndax sëñ Touba dana daj àdduna nee na waxtu koor la yoor yoor la woon nee na njaarim laa ko fekk mu sóonu ci benn lii de campagne ma laaj ko ne ko ndax sëñ Touba dana daj àdduna nee na mu daal di jóg di jug ci saasi ne ma dana ko daj ma ne ko nu mu koy daje mu ne ma daayira yi ma leen digal lay dem ba fu nekk mu am fa mur yi di fa dajale di waxtaani sëñ Touba xasida yi di def ay commentaire dama lay euh, jox misaal rek yow fi ñu toll nii bu fekkoon ne nee nañ daayira amatul ana ban sëriñ mooy mën a organiser mbooloom nan la benn sëriñ di jariñoo mbooloom wala jariñ leen. daal lii ñuy def. am na ci ñoo xam ne ndakaaru lañ jógee am na ci yoo xam ne mbuur lañ jógee am na ci yoo xam ne Thiès lañ lañ jógee am na ci ñoo xam ne Taïf lañ jógee am na ci ñoo xam ne Louga lañ jógee am na ñoo xam ne Saint-Louis Saint-Louis lañ jógee am na ñoo xam ne Diourbel lañ jógee xam ne Touba gi lañ jógee mboolem section yi nga xam ne daal ñoo aj fédération fu ci nekk ay ndaw jóge nañ ndax dañuy sélectionné personnel bi 411 personnes lañ fi indi yoo xam ne ci gox yooyu ma ci lañ jóge ñenn ña nga ca wàñña ñenn ñi ñi ngi fii ñenn ci liggéey mooy xar yi ñu war a jëfandikoo ak ganaar yi jën yi ña nga ca abattoir ndax day laaj hygiène beeg vétérinaire yeeg lañ ci war a seet yëpp ñu seet ko ci foofu lañ koy defaree am na ci ñoo ne li ñuy liggéey mooy jëli xar yi ak jën yi ak ganaar yi ngir yóbbul ko ngir yóbbu ngir yóbbul ko wàññi. daayira bi daayira bi bu fekkee ne au niveau national plus de plus de vingt cinq mille personnes ñaar fukki nit junni nit ak juróom bu ñu waxee au niveau national am na ko waaye quatre cent onze personnes lañ ci tànn indi leen ci màggal gi ngir ñu saytu li nga xam ne moom la Sëñ Muntaxa bëgg ñu doxal ko première safar tàmbalee rek laay tàmbalee togg di organiser di togg ñu koy jël si mu loo xamante dañ ñu cee taamu tey it mu xam ne loo xamante ni li yàgg nañ koo def tey it mu xam ne loo xam ne daal wax dëgg yàlla mu ràññee nañu ci lool ci wilaaya suñu loolu ci moom mooy organisateur ak euh, hébergement ak euh, lépp loo xamante ni dañuy togg di yàq ak ñi nga xam ne ñooy koy servi ak ñi nga xam ne ñoo koy yóbbu lépp ci daay ci ci wilaay bi ñoo koy def. ñun fi ñu toggee ko yóbbu ñu ngi koy yóbbu Kër Sëñ Touba suñ ko yóbboo kër sëñ Touba nag dañ koy tasaare am na ñu nekk garage yu Dakar am na tamit kër sëriñ soo xam ne fenn fu ne dañ fa yóbbu ay ndab léegi nag ñoom it ñoo koy sat bi ñoo ko fay yóbbu suba guñ xëy dinañ taal su ñaar fukki mbana dinañ def mis wi dinañ defit ginaar comme lakk ne léegi ceebu jën am na euh, ceebu yàpp am na euh, tamit ceebu xar kese am na mi social di dimbale mi ngi ci organiser ci xew ak lu dul xew màggalu Touba benn xew bi am amaat yëpp dañ koy jox wilaay ñu koy organiser ñi ngi ci ay budget yoo xamante ne nii comme bu dem demee ko ay fédération bu ñu xewlee dara ñi ngi ci kuy def séminaire maanaam liggéey bu man di doon rek bu ñu ko joxee wilaay wilaay dafa taxaw rek pour defalal leen ko. association boo xam ne dimbalante dimbalante rek moo ko tax a jóg ci ndigalu Serigne Cheikh Gaynde Fatma. salaamaaleykum. comme noonu ko soxna Bigué waxee non la ndax juróom-ñaari waañ la ñu am maanaam jur juróom-benni waañ juróom-benni waañ yooyu dañ koy calcul ci waañ 1 waañ 2 waañ 3 ba waañ 6 waañ bu nekk dafa am quantité bu lay jox nga di togg man foy bi nga gis eh, sama gaay yor fooy boobu ci la ñuy xool bu nekk li mu andi waxuma la sax waañ bu ne palaat yi mu andi waaye palaat bu ne sax li nombre ginaar yi ci tege dañ koy bind bu dee jën la sax palaat bu ne nombre jën yi muy tege dañ koy bind même bu dee sax Eh, xar la xar mu nekk ñaata palaat la war a doon dañ koy bind te bu ñëwee fii dañ koy saytu ba xam ki ñu doon togg lool lañ ñan doon togg ñu leen joxoon ñu koy togg togg nañ ko wala wala wala togguñu ko loolu la ñu njëkk a recherché xool ba xam nombre palaat yi ñu ko doon def loo def na ko bu loolu matee ba pare nag ñu soog a dugg ci biir kër gi xool bâtiment yi nga xam ne moo nekk ci biir kër gi muy juróomi bâtiment yi nga xam ne ñoo fi nekk muy bâtiment sëñ Mouhamadan bâtiment sëñ Moussa Bassirou bâtiment Djili Mbaye ak bâtiment eh, sëñ Modou Balar bâtiment bu ci nekk ay délégation ñoo fa dal ñun nag bâtiment bu ne dañoo jël benn effectif boo xam ne dina méngoog bâtiment ba bâtiment yi nga xam ne neuf chambres la am jël nañ cinq personnes yoo xam ne ñoom lañ fa féetale ñoom bu ñu xëyee ñooy nettoyé ñooy toppatoo gan gi ñooy may gan gi ndox ñoo koy attaayaal ñoo koy defal lu mu bëgg même gan gi sax bu soxlaa yónneen ñooñu lay yónnee ñooñu nag bu waxtu añ bi jotee ñooñu ñooy ñëw si jëwriñ ja fa nekk ka ma fa teg moom mooy ñëw wax ma nombre bi nga xam ne ñoo nekk ci bâtiment boobu noonu ci nombre boobu la ñu sukkandiku xam ñaata palaat lañ ko war a jox plate yi ñu ko jox tam dañ koy variété parce que dañuy togu ciewu jeun dañuy togu dañuy défar michu dañuy défar salade ginar dañuy défar waaji ak ciewu jeun bu xonk ciewu jeun bu wex yoy yep day am waye duñu yobbu fenn benn quantité kon fu ci nek dañuy bolé ay qualité yu bari yobbu fa lolu moy programme bi ni nga xam non lañ ko doxalé bu dee kër ga li nga xam mo nek daru daaru tam bala itam balaa añ bee soxna bi bu buñu paré am nañ auto yo xam ne ci auto rek lañ nek ñom ñoy dem transporter xéewal yoy non ñooñu nag bu dem jëli añ yi man damay jokk ak ñom damay jokkook ñoom ñu wax ma fi ñu toll ndax kooku pare na wala parewul buñ ne ma pare na damay jokkoo ki nekk daaru marnaan moom dina ma wax effectif ba fa nekk mun nañ ne démb rek 730 personnes wala lu ko ëpp ñoom aña nañ fa moom bu ma waxee effectif boobu ci laay xam ne foofu waañ 1 moo fa war a dem wala waañ 3 moo fa war a dem damay woo waañ yooyu du jaar fii ñu jaare noonu ñoom yóbbu añ yi yeneen ci des andil ma loolu mooy ni nga xam ne noonu lañ ko noonu lañ ko tëralee ci waxtu añ bi même ñun itam balaa aña jot dañuy xam effectif bi fa war a balaa reer a jot dañuy xam effectif bi fi war a reere parce que ci loolu la ñu sukkandiku xam bu màggal yàlla suñu suñu suñu suñu rapport ñu xam ndax daaw bilan bi li ñu toggoon baax na wala baaxut dañoo war a yokk déwén wala yokkut parce que 15 safar bi ñu tàmbali dañuy dañ chaque jour dañuy yokk dañuy tàmbali 15 safar 16 17 ba 18 ba 19 li ëpp ci li ñuy togg nag mooy 17 ak 18 ak 19. parce que diggante boobu la gan ñi nekk même 19 bi sax euh, añ bi lay doon rek mais bu cérémonie bi jàllee nit ñi dañuy dem ñun nag ñu